sëriñ mo nek ni dekk dëkk don ko xamne mo dañu wax ni iadb euh, la nek nek ci comme chantier nek ci comme ak euh, nek ci comme ak euh, technicien euh naa yow yaa yor xalaat bi boole ko yor wér gi ah. Yeah. si karaté bi jëm nañ ko commencé euh, c'est la première fois ñu commencé compétir yi première compétition incha allah tey jii ñu wax ne euh, sport euh, jàpp naa ne xanaa ñi nga war nañoo def jàppandoo Bambey ñëpp doon benn ñu fexe ba budookaay yi doon war a doon champion duñ la war a mën a jàppale ci moyen ak ndax gis nañu jàppale bi xaw naa waaw jàppale bi lu tax mu des mooy maanaam euh, il ñu nekkandoo benn ñuy toog di euh, di waxtaan si biir pour mën pour mun développe muy karaté muy judo muy kendo comprendre lépp ñu jëm bu nekkee benn rek après dina dox incha allah waxtaan nag la laaj. loolu am na solo bu baax ñu di delluwaat tamit di gis gars yi nga xam ne li nga xam ne mooy kata euh, combat yi ñii ñooy def kata combat yi gis nga leen ñun ay ñun si daan ñu ngi wax ak ah, mooy sànq daan ah, nekk yor ñi nga xam ne ñooy combattant nga ñu jàngale voilà. suñu sañ combattant bu dee déplacé déplacement bi yéex dina dina ko xañ li nga xam ne ki bu ki muy tajal bu gaawee tuuti dina ko yàq lu bëri ndax euh, déplacement da ngay gis koo xam ne day déplacé buy jóg ne moom la war a ki nga xam ne moom la war a bu fekkee ne kooku gaawoon tuuti mën na koo yàqal lu bëree bëri kon déplacement lu am importance si doomu aadama même boo gisee euh, nit euh, di war di cëpp cëpp ñu bañ day ñëw wala du ñëw moo tax cëpp cëpp yooyu noonu dañuy xalaat ne day day sauter rek mais sauter boobu ci nga war a mën a mais bu fekkee def appel nga xam ne moom ngay moom nga tànk moom mën na malgré mais man maa def nii yokkaat ak ok kon Seeku Jawara day gën a gaaw da ngay dugal bu ok eh, c'est bon li ma ko may mooy xoolal donc un su fekkee mooy ñëw ñëw mooy demaat mooy mooy rek a su gaaw mais su fekkee dama ma arrière bi day sori des fois sànq fois des fois ma leen des fois ngeen bu ñu dañ fekk nga vai para 你们不客气，不客气，这个得来得来，得来 naa dugal te kii na ko doo dugal ndax bu dugalee dañuy égaliser kon léegi jàkko bi da koy baare te yaakaar naa boo baaree di nga ko dóor kon léegi ayoon nañu xool ba xam na ñoom ñaar Goleiro. Goleiro. nga ñëw ànd ak ñoom intégré si kon ờ, loolu may na la tey nga mën a am ay médailles am yoon kontaan na bu baax a sama caméraman bi médaille yu bëri dégg ah, loolu ah. am na solo bu baax a baax ah, kii mooy sañse da waaw ñaata médaille eh, ñaata médaille nga yaa dégg amagul nañ cinq médaille cinq médaille ñaari nañ dëgg bi waaw amagul nañ cinq médaille cinq médaille premier sotti bi ñu njëkk def championnat la ñaanal rek yàlla jàppale ñu liggéey bi mën a continuer bañ séntu leen pour la quoi. waaw yow euh, defe naa daa mel ni combat rek ngay jàngal ba lépp ah, lépp lépp rek lépp ah, ni ci combat bi nga gën a ah, gën a tax combat bi laa gën a ah laa gën a maîtriser combat a xam nga ma xale yi dama gis ñu bëri bu toppee combat dañ def ba kata da te gis nga combat boo ko toppee topp ko topp ko bu yàggee da ngay dem ba yow pour nga jàng boo nga am sentiment jàngal nit day jafeeti la bari ay combattant yoo xam ne boo leen indilee si tapis ne jàngalal lay jàngale moom li muy xam mooy combat la lay jàngal kon loolu war nañ koy boole kata yi ak combat yi ñëpp euh, di doon benn loolu mooy base track voilà base track bi nga mooy kiiw a ëpp ɗum sokala heure fiise ka kaka combat nag moom lañ fiise ba gañe ba gañe mais kataa moom boo triché tuuti rek moo xam ne la place bi dëgg dëgg dëgg kii moom kata voilà kon tey yéen nan ngeen war a def ak yi nga xale yi daas tuuti ñëw sax di ñu laaj nañu ba xam ndax daa am fay loolu ñu ne noo amul ñu ne noo loolu ñëpp ñëpp ñëpp tout le monde bu ñu ñëwee tamit laaj kenn dara ci ñoom comme comme fi nekk ñëpp ñu laaj lépp lépp ne ay prise a ñu nekk ci parce que daanaka fii euh, bor bor bor boobu pour nga pour nga pour mu yemb day xaw a jafe. day day day xaw a jafe day xaw a jafe. voilà léegi léegi léegi. léegi kata bi ñu def nii kata bi nu mu tudd. kata bi moo tudd impi. impi euh, defe naa dafa boole euh, dafa boole lu bëri. ndax gis nañ na loxo yi liggéey la. tànk yi liggéey la te coup yi bari na ci biir lool am na ay ay para. parce que euh, kata bi def principe loolu ay regroupement technique bëri lay nekk. léegi xeetu combat imaginaire lay nekk. léegi bu fekkoon ne trois trois

man daal euh, leen man def leen kii rek gànka ko gànka ko nga ñuy defal kon bisimilah ñu ñu gànka ko voilà ça ñu ñu ñu Thank you. amoon na médaille d'or ci compétition jéego bi ñu koy gis noonu voilà amoon na Thank you. jël sa waaw ak doo mën a def foofu ñàkk loxo bi ñu waaw xeetu xeetu tontu lay doon ma daal di dem léegi kee da moom mu loxo bi tànk bi wala loxo bi voilà ba du ba yes ba yes léegi gis naa tamit baare boo defi ah waaw ndax euh, baare bi xam na mën nañoo jàpp ne yet lay doon wala lenn la doon ndax waaw dama garaaw na wah wah mën na nekk parce que fii waaw waaw nga baare ba pare waaw nekk bi def sama tournée majeur majeur ne nit ñi buñ koy gisee dañuy jàpp ne paaraat la nit ki def day paare fekk borom pour euh, day dóor. day dóor kon nañu sóoraale ne. Euh, karaté saa bu saa bu demee bu dee bu loxo bi ñëwee rek kon jàpp nañ ne dóor dina sa foofu. kon ñun ñi nga xam ne suñu bi xaw naa rëy tamit ñu sóoraale <laughs> dóor boobu noonu. <laughs> waaw voilà léegi euh, gis naa ko bi kataa bi tax léegi bi nga dafa dafa am solo ndax nit ki nga xam ne dafay waaxu wut si la nga def benn déplacement waaxu war ko dóor kooku boo ko dee dóor euh, bu fekkee nit ki am na réflexe tuuti fuu ah, boobu nan ñu a war a baax man bi waaxu de ne damaa waaxu pour léegi ma ñëw ne dama lay war a dóor léegi waax boobu tamit moom nu muy di ñëw ci yow. waaw da tamit noonu ngay waaxoo di ko dabi ko kon ak kuu kenn du ko daw kenn kenn du ko daw Aku man jàpp naa ne coup bi yow bu ma doon dóor bu ma dawee damay gaañ. waaw ak xeeti njëkkante rek lay nekk. ah léegi kon man su ma defoon nii dama si la léegi da ngaa yow da ngaa war a dama war a def. waaw mais nag par exemple dama. voilà man ma wàcc. daal di ñëw dama lay wuti fii dem parce que en fait benn kii parade rek toujours duy léegi nag man bu ma doon bañ bi nan laay def. ah ma doon bañ bi man mi dóor. yow yow mi yow mi dóor. waaw waaw uh, xam xam nga daanaka yow yow mi nga xamante ne yow yaay attaqué. waaw parce que foog nga foog nga foog nga tamit yow mi attaqué tamit da ngay da ngay ci li nga li nga a ba tax na tey jii. yow tamit ni nga ni nga sóoraale moom nu mu lay baareewee. waaw riposte tamit noonu war a sóoraalee léegi comme ñëw naa dama lay dóor léegi man mën naa ah ah bi mën na téye kon euh, gis nga Mamadou euh, <laughs> noonu am na solo bu baax a baax a euh, wan nañu kii ne kon dóor nit ñi day wax naan dóor war ngaa sóoraale fayu ndax nit dina jóg dóor doomu aadama te du xalaat ne ay fayu dina ko ci fekk kon paraat yi mu woon nii won na ne paraat bu ne war na mën a am dóor kon xale yi nga xam ne ñu ngi def karaat kon nañ leen di moytu dóor ndax dóor bi war naa mën a ànd ak leneen kon Santhia lan nga ay war a indiwaat ak ñu ndax daanaka lool lool loolu waaw. ma ne est-ce que après duñ jël noonu waaw. bu fekk nañ a fekk nombre ko defee ñu ñu am ñett yéen tamit ñu amaat nekk parce que dafay ku nekk mën nga ak xëy na euh, mu mën def ba bëri loolu. jërëjëf bu ñu gisee ñii nga xam ne tey am mën nañoo ne amul ay ay Euh, mooy ñi nga xam ne tey jii dañoo dëkk fi nga xam ne mooy Bambey euh, yàlla dogal bi nga xam ne université bi euh, karaté bi di dox fi ñoom ñu doon am amuru karaté bi ànd ak waa université ñëw fi waa université ne li ñu indaale dañ leen ko fi bàyyi kon université am na importance bi na loo xam ne indaale nañ ko fi bi nga ko fi indaale fokk ñu bàyyi ko fi ak te du karaté kese bari na loo xam ne ne waa université baa nga ko fi indi te dañ ko bàyyi ak doomi ba Thank you. Ya, tak mau saya paham. Baik. Gitu. Ya, lo bukan di terakhir, lo juga. Kamu terakhir, bukan dulu aku sentuh kok, lo lam kok kan dia dah dah bukan Pan, pan. Ah, for the thing, apa? Wow, yo, dah meni sentuh belum? ah yaa ngi ko def boo ko commencé depuis deux mille quatorze tey jii ba doon am solo yu rafet mais kontaan na mais euh, yow tey en tant que jigéen tey loo yokk sa man. parce toogee sama xol na xale. su ma ñëwee allah. en plus ñu fekk seen seen xale yàlla na ko wax seen sëriñ man daal sama moromu jigéen ñi ma leen di woo surtout ñi nekk si université gis na ko maître kooku léegi tey jii Sanché Bambey TV daal di àndandoo ñëw fii xam ne mooy tey jii loolu noo noo noo ko waaw am mbégte lool lool ci di ñëw bu a nit ñi di xam ne karaté xam nga karaté tey ñu ngi jëfandi tey ñaan na bu baax ñu leen sant baax seen teewaay bi ñu am mbégte lool lool a tawaay fii nii seen ñëw bi rafetlu nañ ko di ñaan yàlla jëm ci dégg daal di fay karaate kon ñu bàyyi la def seen tal euh, ba beneen yoon voilà li ñu wax rek euh, dañu leen di won ne euh, aar bi respect la aar bi dafa am loo xam ni tey boo ñi kii nga xam ne boo boo suppalee morom dañ koy xam tey xoolal ceinture nga xool gisal ceinture euh, noir bi euh, gis nga marron bleu vert euh, waaw zone bi nekk nii kon wane na orange kon wane na blanc ne ne kon wane na ñi nga xam ne ñoo seefe par benn benn dañu leen di dañu dañ dañ nekk te fi mu ne ceinture noir bi mun na takk ceinture noir ñaari takk ceinture noir taxawandoo am ku supérieur morom bi ndax ki njëkk a takk morom ja da koy da koy doon seefam ci benn côté ndax supérieur bi da ciy am mais nag ñaa takk seen ñoo tolloo am na lu des am na supériorité enseigne bi da ciy ñaar takk seen tunaa te lu ñu dox te takk seen tunaa mën nga troisième dan quatrième mooy ne sa ndig du sa feeñ kon li ci des ay kayit moo koy def ak ñu euh, carte bu koy wan. quatrième temps ci la centre bi. changé ban façon changement lay am. quatrième temps mi ngi nekk noir ak rouge. noir ak rouge lay doon. Ah, mu daal di mu daal di ñu ko xool ni. comme ni dañ koy balancé quoi côté bi lay nekk noir. waaw ah. dañ koy jaxase quoi. kon daal fekk gisaguñ centre bi jaxasoo daal saa waay ji duggagul ci quatrième temps. man man fan yi dinaa takk centre bi. <laughs> quatrième temps laay nekk dégg nga. voilà kon ñu bàyyi la ngeen daal def <laughs> ay jàmbaar lan man dama xaw a tawat nii rek moo tax. naka ragal koor ay jàmbaar baax ñu ngi liggéey ñaanal leen yàlla la laf cet ay champion du monde ay champion d'Afrique yi ko bi sama caméraman mënuma dama mën a gis ab ceinture boo xam ne jigéen la. nekk ci mbooloo mi tamit te du ma moom itam ndax noor moom su si yow noo tudd. man day sëb. day sëb. dëkk fan. dëkk euh, bi da wala troisième. première daal mhm. yow dinarden ba ne su bu baax a baax a Oi, oi. yooyu ñu bàyyi ñu def benn silence. Deux, trois, quatre. Monte. pięć, Maty. Jaj. voilà ñu nekkaloon leen fi nga xam ne nii mooy EADT euh, Karate Club ñu nekkoon ak ñoom tey jii wax na ci bi nekkoon léegi nag euh, ñu ngi leen di euh, seen xarit as bi moo leen ko tey jii nag koo xam ne bëgg nga xam ne nii mooy émission bi ñu leen doon defar fii nga xam ne mooy da nga dem ci YouTube wala nga dem Facebook. wala nga dem Instagram di nga ko gis loo ko bëgg a seetaani di nga ko seetaani eh, kon ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di kontaan tey jii fi eh, dalal gi ngeen ñu dalal may ñu jàmm ñu wax ñu li nga xam ne moom moo nekk ci yéen ak won ñu li nga xam ne mooy eh, technique yi fi nekk ñu kontaan bu baax a baax a baax a baax ñu waa diaspora bi di leen may jàmm yàlla na yàlla defal jàmm yàlla ñu xam ne moo am jàmm tukkum defal jàmm nga am jàmm yàlla na ci daal mu tukki daw ci